faddulun asimun sarifun farisun fadilun mbakke ngusooɓe la kii mooy njiitta mooy wasila fadulun asimun sarifun farisun fadilun mbakke ngusooɓe la kii mooy njiitta mooy wasila lor dem na xaali baawaan dootul jeex abadan ku sopp Seex Fallu xéewal war lor dëddu lor dem na xéewal yi baawaan jeex abadan ku Alaaji Fallu xéewal war lor dëddu la day ilaa Seex Fallu fi abay xayri ilaa man adaa tànneef ya xam nanu la Seex Fallu loo wax borom nguur ga gaaw koo def ni yaay ka juboog waa ahlu diiwaan ya seen mbooloo ma xam nanu la baytil wilaayati yaa yor fondu mang ba bu wér nga ya jiite mboolem kuñ ni wàlliyu la gaal gaa ngi nii teer ku nekk ba tarde yaay xala yëg ku dugg ci gaaluk sëriñ bi Seex Fallu àggale la alayhimu salaatu wassalaamu boo léegi nga may nu jannatu salaam samsu soodaan fallu yàgg nga daan um nga lambi soodaan ñoo siyaare yaa samsu soodaan fallu yàgg nga daan um nga lambi soo daan ngi lay siyaare rahmatullahi wa barakatu sëriñ bi noo ngi lay nuyu noo ngi lay siyaare noo ngi sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sëriñ Tuubaa waaye noo ngi ànd ak yow di sant Cheikh Modou Fadal ndax xam nañ le moo mooy sa bëgg mooy sa yéene mooy sa yitte kon nit amunu bëgg amunu bañ lu dul ànd ak yow ci topp ci sa ginnaaw di sant Cheikh Modou Fadal te loo nen ñu ne ca loo geesuwul jéemu noo xam fu mu toll di la ñaanal ci barkeb Serigne Fallou sama borom yàggal la fi may la wér bàyyi la ak sam xel àggale la sa yéene ba sa yéene bopp ji nga xam ne moom nga am ci liggéeyal Serigne Fallou te moom dong mooy li la ñor la nga ci bëgg nga def ko def ci lu kawe sa njot mu ànd ko yow ba kàddu yi nag dañu ko yëkkati ci sa kanam di ko jégglu waaye mu doon loo xam ne soññee rek lañ ci jublu ak jéem a feeñal sunu mbégte ak sunu pësteef sunu digganteeg yow ànd ko bokki taalibe yi nga xam ne ñoo jóge Espagne def mbooloo mu dajaloo doon benn ñu yëkkati kàddu nag ne naa ko jotal ba nga jot ci waaye nuy tàmbali ci kàddu yooyu di sant maam seex sa doom ji nga xam ne sëriñ Modou Wade waxal na ko léegi jamono yi nga xam ne ñi ngi dajale daayir bi di leen def di leen def benn ñëwoon na fa ñëw ci yar ñëw ci ndigal waaye nekk ca lañ ko defloo woon ba liggéey boobu mat nee ñoom ñoo ngi koy sant cant goo xam ne la koy seereel loolu it xam nañ ci dara waaye Mbacke ma doolu lay wax ne ñoom ñii taalibey sëriñ Touba lañ njabootu sëriñ Fallou lañ di sa njaboot foofee ñu nekk di fa liggéeyal bi amuñu bëgg amuñu jublu lu dul rek liggéeyal sëriñ bi def nañ seen bopp benn borom yi positif lañ te nun dañu fay dem lu baree bari di leen seere ci ne ñoom guddi ak bëccëg sa mbégte rek la ñuy dabu. bari nañ nag ay ay ay ay yitte bari nañ ay jafe-jafe ci ñoo seen biir ñu ci bari waaye xam nañ ne sunu borom lépp lu baax teg na ko ci loxol sëriñ Falilou te mi ngi sa loxo kon tey ñuy ñaan nga ñaanal leen yitte yooyu lu mu ci mën doon na faju ñi teew ak ñi teewul ak ñi nga xam ne amoon nañ yéen bëgg teew ak ñi xam ne am nañ yéen jàpp ci liggéey bi ñëpp lii ñu indi muy seen yi nag wax nañ ne sax am nañ gàcceeg joxe kersak joxe ko ndax bu ñu sañoon li ñu indi du xa du mat asakay la ñuy indi lañ ba lañ bëgg indi waaye nag ñaan xam nañ ne boo leen ñaanalee fu ñu bëgg àgg danañ fa àgg te loolu xam nañ ne euh, nattable amu ci kon Mbàkke ñoom ñëpp ñi nga ànd ak nun di la doolee jéppali sunu bopp di la doolee yaakaar di la doolee doyloo ngi jëm si Amadou Fadal di la doolee ñaanalit ba sa yéene àgg dinañ ko bëggee am nañ daal ay jafe-jafe foofa te seen yaakaar jëpp jooyal nañ ko jëm si jëmal si ko ci yow te xam nañu du tas ndax fi ñu ko teg wér na kon kon noo ngi ànd ak ñoom ñi borom bi ne moo nekk ci bopp bi jiital jiite ko sëñ As Diop sëñ Modou Wade meek sëñ Fallou Lom yi ñoo ñoom mën nañ leen ci tudd ku mel ne sëñ Ibrahima Samb ñi ñi nekk ñoo nekk ci fédération bi waa Espagne gépp dugg nañ ci biir liggéey boobu ñenn ñu ci nekkit bu ñu sañoon ñoom rek ñoo jël liggéey bi liggéey ko seen yéene àgg na foofa waaye lott nañ ci waaye nag xam nañ ne lépp man man man nga ko mbakki ci doole sëñ Fallou kon nag ñoom ñëpp ñoo ngi bokk di la ñaanal waaye di ñaanal nga ñaanal fédération bépp fédération bi nag yéen itam noo ngi doolee soññ suñu bopp di leen soññ ngeen doolee jàpp bu baax ndax koo xam ne kii am nga lu ñëpp bëgg da xam ne am nga lu ñëpp bëgg moom mi nga xam ne mooy borom kër gii wax nañu daana toog fee ci ci allié daal ne bu leen weex bët bu leen wàllu tiir xam ne leen kenn ku ne fa nga jóge yaa fa gën ku jóge fa nga xam ne fa nga jóge yaa fa gën nag fa nga dem da ngay fexe ba gën faa bokk gën kon nag na ngeen sant bu baax a baax nan sant bu baax a baax ci boole gi ñu yàlla booleeg Serigne Fallou ndax woon na fi bis dem njaarim seet siyaar ji Serigne Touba bi jamante mu ana waa Touba mu ne ko ña nga fa ana waa Touba ci ñetti waxam yooyu mu daan wax ba ko waa Touba ña nga fay sant yàlla sëñ bi ne tekk mu ne ko boole gi mu nu te nga xam fa nuy jëmee sant nañ yàlla bu baax ci boole nu booleeg yow te daal tallal ñaari loxam yi ko mat na ko ndax man mii démb ak tey lépp ak sama di baaraam man ku yàlla dogal na nga ànd ak koo xam ne kii loolu sëñ Tuubaa waxoon loola na nga sant yàlla bu baax di góorgóorlu xam nañ sëñ Fallu kenn amu ko toog ne fii ci këram gii mbooloo màggali ñëw ñuy siyaare mu dem ba rang bi xat mu sonn jóg dugg ci biir tëdd góor gi mbay ndaw ñëw ne ko yow de ñi nga def ñu doy waar mu ne ko lu mu doon mu ne ko dama xam ne ñi ñaa ngi fii nekk ci biir di rang bëgg laa siyaare te doy wuñ la dara lu weesu ñoom jox la seen jox la seen addiya nga ñëw tëdd fii te ña nga rang rang ba dëggut su fekk sëñ bi daa suunu mu daal jóg toog dal ne ko mbay nga ne lan mu ne ko damaa xam ne ñeeña nga fay rang ba rang nga gudd lool ñu ngi lay siyaare bëgguñu la lu may gis la ba joxale seen addiya mu ne ko mbay de ma joxe seen addiya mu ne ko waaw mu ko dañ ci ko waaw kon nag kooke ku ànd ak moom da ngay xam ne la liggéey na nga ci góorgóorlu bu baax moom mii nag mooy moom moo ko fi teg nan ko koy xoole te jàppe ko ko te gëm ne lépp lu ñu yaakaar dañ ko mën na am ci moom yàlla bu mu amam ko yàlla na ko yàlla àggaleel yéenam yàlla gay si àggali yéenam yëpp ak sëñ Tuubaa àggali suñu yéene kon nan dal xel bu baax a baax jataay bi nañ ci dal xel baax bis moom moom ñaan sëriñ nga ñaanal ci àdduna bépp ndax àdduna bépp am jàqare na ne ku masaan jàq fii ngay ñëw kon nag fa kun sakwal jami waxu moom bi lut fin wa kun rabban ruufan bi naa bara loolu lay noo ngi lay noo ngi lay ñaan par la nga tibb ca sànni ko ci ndax moom ba mu fi nekkee ñëpp la jaboote woon te jógu fi kon nag yow mi fi nekkal noo ngi ñaan lii xew àdduna bépp di tiit bañ dem sax bëgg a tàmbali taxal dëkk bi ngir bëgg a saboote bis bi bu mu am walaay sa na lépp jub waaw te xam na ne boo ko dogoon lépp dana am kon nag na lépp jeex waaw jeex bi ba lu mel noonu jeex day dem xéwal nag ñëw na ko ñi nga xam ne ñu ngi ci àll bi tam dara bàyyi wu fi lu may bëgg addiyee ak lu ñu teree njaboot gi na ñëpp am jàmm na ñëpp am xéewal na ñëpp am yiw bàyyi sa yàlla waaye lépp nag yàlla na ko yàlla soppil aw yiw ak fan wu gudd ak wér ñoo ngi sàkku sant baax di gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe mbokki julliti yi fédération soppe Cheikh Mamadou Fadal bi jógee Espagne ak bi jóge Italie ca Padowa sëriñ Abo Baraka mu Cheikh Fadal mi ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi wér ak turu njabootu sëriñ Fallou gépp di leen siyaare bu baax moom itam di jël nuyoo bi ak ñaan yi di ko teg ci loxol sëriñ Tàkku Mbàkke moom Cheikh Modou Fadal mii toog ci wetam di rakkam di xaritam te nu am lu nu ci xam te lépp di aw yiw muy kenn ci moom mu ngi leen di nuyu bu baax di leen masawu coono yi xam na ne aw ngeen fa am waaye sëriñ Sidi moom Cheikh Abdou Lahad dafay ñëwoon léegi moo taxoon mu doon dem di saafonteeg moom kon sëriñ bi sëriñ bi nee na dégg na li nga wax te fii moom li fi nekk mbakki xam nga ko bu baax ndokk ba nga jaare ci lépp te dongo sëriñ Touba yi di soppe sëriñ Fallu yi du ñuy ñëw fii fi sëriñ bi dajal seenu ñaq dajale seen addiya bàyyi seenu jot jóge ci gox yu fasanti ko nga ànd ak ñoom di sëriñ Fallou ñëw fekk fi sëriñ Fallou mu ànd ak maam Cheikh Ibrahima fal toog ngeen di fi sàkku lu ngeen dul yóbbaale sëñ bi nee na loolu moom xam nga ko du am lii ngeen sàkku fii incha allah dana ñaan ci sëriñ Fallou mi nga xam ne mooy buntam ci lépp li ngeen fi sàkku lépp sunu borom jox leen ko ngeen yóbbaale ko tamit lu gën ci yéen nag. ndax bu ngeen amee jàmm xelam dana gën a dal bu ngeen yokkoo dana yokk bu ngeen muccee xelam gën a dal kon yooyu yii lay ñaan ci barkeb sëñ Fallou fu waay mën a nekk ñi ñëw ak ñi ñëwut ak ñi yi bokk ci yëf yi ak ñi ci bokkut te yàlla dogalul seenu bokk ca xéewal yooyu yi ñëw ak tënk-tënk yi sëñ bi wax yu ne ci jamono ji di lëmbe jaaxal ñu bari waaye jaaxalu sëñ fal ñaa dina ñaan ci daraje kookee barkeb sëñ Touba mais sunu borom saafara lépp mu sedd guy jeex takk la ko benn waaye waxoon ñëw di ko jàngat jaafa di ko jàmbat jàngoro sëriñ bu mag ci dëkk bi yabal ko muy ab mu ne ko sëriñ bi de sa sëñ bii de diwa moo ko fi yabal mu ne daa am lu ko jot nee na mu mu ne ko lu mu doon mu ne ko kenn xamu ko mu ne ko lu kenn na dem kenn xamut kon lii nga xam ne si kenn am ko ci pexe na na na na dem fu kenn xamut day sofo ci barke kooke ci dara darajay baat boobee ci barke boobe sunu borom saafara ko ba ba ji xel yi jiix jaaxa te jàq te coow lu bari lool lépp na nërëm te sunu borom so soppi koy xéewal sëñ bi wax ne sant na leen bu baax a baax. ndax yàgg na faa ñëw te nee na matu ci yéen ndax li li nga xam ne si bu fa ñëwee ak ña ñëw ñu leen di xoole sëñ Touba ak ñeneen ñi nga xam ne si la ne fa seen kër sëñ Touba ko fa def la ngeen di daj ci ñoom te du ngeen yokkat mukk loolee nee sëñ Touba rekk a leen mën a fay. xam na ne taalibe bi dëgg ngeen ay jullit àqan ngeen te nangu ngeen a sonn lool ci njabaru sëñ Touba gi loole sëñ Touba mi ko waral yàlla na leen yoral seen lépp te ku sëriñ bi yorol sa lépp sa lépp sàmm. sëñ bi nee na ngeen dalal seen xel saa su nekk xelam du jog ci yéen mukk nee na fu ngeen toll di leen di wax amin xanaa li sëñ tàkko wax rek di gën a góorgóorlu rek te xam ne wàcc am murit moom du wàcc feeg teguñu la ci kuusu bàmmeel ba nga am fa ñetti fan xamal ne wàcc goo soppi liggéey nag am na waaye nun ñu nekk ci réew ma danoo gën a jaajuwaat te xam ne sëñ Tuubaa nu fa yóbbu te moon na fa ba bu joxe woon ndigal sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa mi bu joxe woon ndigal na benn murit moom fanaan day metti rek waaye dana am ñoo xam ne si bu ñuy fanaan ci àll bi la fanaan kon nee na na ngeen gën a góor góorlu ci fas yéene jaamu yàlla bañ a tooñ te ku tooñ nga jéggal ko te ngeen bañ noonoo lislaam moo jëkk bañ kuy noonoo nee na bu kenn noonoo rawatina sa bokkum taalibe ñun ñëpp sëñ waa ñu fa yóbbu ñun ñëpp sëñ tubaa tax ñu xamante kenn ku nekk ba ngay tukki sa benn saak nga yoroon mbaa sax yuroo ab saak kon nag bu yàlla ak bi baaxee nu ba ñu fa fekk ñuy wax ak ñoom di jëflante ñoom ñu nuy wan ñuy gis ñuy am yaakaar di dolliku ba gone yi duñ saaw kon nañ sant yàlla bu baax di gën a góorgóorlu fédération bi nga xam ne si moo nekk Espagne sëñ baa ngi leen di digal di leen sant bëgg ngeen góorgóorlu baax ci bennoo ndax daana wax ne de lu kenn dàq lu kenn mën ñaar ko ko dàq wante lu ñaar man ñett ko ko dàq kon nag bennoo gi dafa gën moo tax sunu borom sàkk juma ngir mbooloo mi di fa ànd di julleen julleendoo kon yiw wa ca nekk bu sëñ bi diglee ci ne nanu boole suñu xol yi boole daayira yëpp muy ay section ñu fas ko yéenee def def ko muy benn fédération ñu ànd ak moom di ñëw fii di jofel si fii nee na loolee de moo gën sëñ bi nag bu nee nanga ma gën def ko moo gën bañ koo def nee na sant na leen bu baax ci addiya ji nga xam ne weesu na bu yeggoo te seen jëf jiitu ja muy lii nga xam ne sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa waxoon na leen ko mu jëmoon ci eh, université bi nga xam ne yóbbu na ci luy tolloog trois cent nga xam ne de sëñ Mountakha rek keroog wax ne ne lu ne de gis naa ko waaye 313 million ci addi jëy sunde maa ngi ko soog a gis yéen waa kër sëñ Fallou yow sëñ Aboor yaa ko jëkk indi kon nag loole seen jëfa nga ca ku xalaatoon sax bëggoon caa sax xamal ne sa jëfa nga ca ndax yéene woon nga ko sëñ bi daal ci gàttal nee na mi ngi ñaan ci barke sëñ fallo aajo yu ngeen fi wax sëñ tàkko waxal leen ko yàlla na leen ko sëñ Fallou defal ngeen yóbbaale ko ku leen gis ku ngeen gis ku gis kooko loolee yàlla ci suñu borom fas aajo yooyee ci barke sëñ Fallou xolam sedd na guy yàlla na ngeen yokku yàlla na ngeen mucc yàlla na ngeen am jàmm ci barke ngeen ñëwaat fii déwén te fekkaat ko fi te xéewal yi bari lool lool lool ba ngeen mën a liggéeyal sëñ Fallou ku fi indi woon ak jagat yi nga jag ba mën a liggéeyal sëñ Touba koo xam ne si suñu borom bindoon na la nga war a gàttu fan yi na nga na ko yokk nga ne fi di liggéeyal sëñ yàgg fi nag ma sax man bi di sas nag ci seen xol yu set di sel yi nga xam ay taal ak taaliba képp ci nekk sëñ bii ngeen ñaanal ko mu yàgg fi te wér fi yàggee te wér suñu njëriñ képp la na ngeen koy ñaanal mu yàgg fu te wér yéen moo ko gën a xam xam ngeen xam naa kon nag na fi yàgg te wér moo ko rakkam yu baax yii mu bokkal liggéey bi njabootu sëriñ Touba gépp jërë ngeen jëf ñi ngi sant borom télé bii di istixaama yàlla na ko suñu borom sàmm ba mu ci télé yi gën a kawe jërë ngeen jëf aleykum salaam wa ñu tàllal sëñ bi ñaan mi ilayka tubtu tawbatan nasuha wajhal lisaani fii barke Cheikh Mouhamadoul Fadal mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo nuyu ñëpp tey siyaare ñëpp tey jégalu bu baax kàddu yi nga xam ne ñoo ngi ko yëkkati ci suñu weti sëriñ bi ñu toogal muy taalibe sëriñ Fallu bu di taalibe bu bëggub sëriñam muy sëriñ takku Mbàkke mi toog ndax ñoom luñ mën a am nekk taalibe sëriñ Fallu da leen ko gënal kon sëriñ bi ñoo ngi lay siyaare bu baax a baax tey jégalu kaddu yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati ci turu fédération bi nga xam ne moo nekk ca Espagne njiital sëriñ moo du Ba ak mboolem taalibe sëñ Tuubaa yi mu ko àndal te dara du seen yitte lu dul tu bëggu sëriñ bi rek waaye tànn kenn ci njabootu sëriñ bi muy Cheikh Mouhamadul faadal mi nga xam ne boo ko xasee tudd léppam mooy sëriñ bi ñu am yëg-yëg ak yéene. ak xam fi nga xamit ni Cheikh Mouhamadul Fadal taxawuñu leen ko ci seen saaxir ak seen baatin ak seen man ak seenu manadi ba lépp loo xam ne dugg nañ ci baa ñu nar dugg ci pas-pas ak pëstéef lépp luñ ko ci ñaan mu defal leen ko loolu nag dem ba buur seeni xel ak seeni xol ñu am yéene liggéeyal Serigne Touba jaare ko Cheikh Mouhamadul Fadal loolu rek mooy jéego yi nga xam ne at mu jot ñu am yéene ci weer wi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Fadal noon ngir ànd seeg liggéeyub sëriñ Touba bi nga xam ne moo tax sëriñ bi wàcc jamono Cheikh Mouhamadul Fadal ñëw àndoon ci liggéey bi ñëpp xam na ne weeru Kazu Rajab muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ci la ñëwoon jamono ni ko doon waxee mooy euh, diggante mi Moustapha sallallahu alayhi wa ñoom ñi nag ñu doon ay taalibe sëriñ Touba yoo xam ne seenu bëgg seen cofeel adduna ak àllaaxira du leen lu dul liggéeyal sëñ Tuubaa loolu moo waral ñaq wi nga xam ne moom la ñuy dajale mu néew mu bari ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne nit ki bépp dërëm boo xam ne am na ko bu ëllëgee danañ ko laaj fan la ko jëlee ak fan la ko def moo tax ñu bëgg a rawali seen bopp bëgg a rawali seenu njaboot ci ñaq wi ñu liggéey liggéey te di ko am ca réew ma biir nañ ne lépp luñ ci jël def ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi rawat ñu jaar ko Cheikh Amadou Fadal dërëm mboob moom raw na rawan seen njaboot moo waral te xam na ni yëpp liggéey yoo xam ne ñu ngi koy woote fii ci dëkk bi wala fi mu mën a doon ci àdduna bi leen lu war mooy bàyyi seen yitte yëpp ñoo ànd ak moom ci tool yi wala bépp tabax lépp lépp loo xam ne sëriñ bëgg na ko ñu ñëw di ko def yàlla nattoo na ñu féete fee ca Espagne di fa liggéeyal Sëriñ Tuubaa kon jàpp nañ ne ñaq wi nga xam ne sëriñ bi mi ngi leen koy war wërsëgale waxuñu sax waruñ lépp luñ ci def liggéeyal Sëriñ Tuubaa tudd waaye war nañ caa jël cël bu rëy jox ci Cheikh Mouhamadou lii nga xam ne moo ci wàllam loolu rek mooy seen jéego yi mooy seen yitte yi addi ji lu ñuy xeeb la suñ ko indee bu doon ay milliards xam nañ ne li leen Cheikh Mouhamadou faadal defal ni ko sëriñ Sambay di waxee ne koo xam ni buddee na sa gétt ca sawara yóbbu ko àjjana soo doon jaay sa ñaari waajur yi mënoo ko fay ñoom xam ne ni mënutuñoo fay Cheikh du Fadal di barkeelu ak di wane seen cofeel ak seen seenu bëgg ci Cheikh Amadou Fadal rek ndax dafa bokk ci xeeti cant yi li ngay wax nga di ko jëf moo waral addi yi at mu jot ñi di ko dajale te ko te di ko xeeb lool tey ñaan ci barke Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne moo tax mu ñu di ko jëf sëriñ Abo mii ñu fi fekk rawatina yow mii di jëwriñam te ñëpp xam sa diggante ak ñoom ñii suñ borom gën la fi yàggal gën a guddal sa fan ba yéene ji nga xam ne ñoom ñi am nañ ko ci liggéeyal sëñ tuba kenn ku ne luñ fi indi nga ba liggéey nga mën koo indi yow dong la ci yiw ak tuyaab nga boole ko jullit ñëpp ñoo ngi ñaan nga ñaanal si aboom it mu yàgg fi loolu te wér jàngoro ji nga xam ne wax na ne jamono ji mi ngi ci àddina bi te fépp mi ngi koy lëmbee ñi ngi ñaan ci barke Cheikh Modou Fadal barke weer wii nga ñaan ci barkeb jataay bi suñ borom yemale ko ci képp ku mën a dal nay doomu aadama rek ci barke Sëñ Fallu loolee na ko na ko na ko suñu borom daal di saafara jàmm am fépp wér am fépp barke Seexul Xaddiim sëñ Moodu waxoon na ne ñi ngi soññi mbooloo mi baax a baax baax ndax lii moom lu ko gën a wér amut ci àdduna mooy liggéeyal sëñ Touba dajale saw ñaq ñëw jébbal ko sëñ Touba Cheikh du Fadal mu nangul la ko loolu moom liggéey bu jafee-jafe-jafe la kon nag mi ngi ciy soññi ñi nga xamante ñoom la ci àndal ñëpp rawatina ñii nga xam ne ñoom la ñuy wax ay soxna te ñu bokk ci liggéey bi innal muslimina wal muslimaati aaya ba ba fa mu tàmbali ba fa mu yem fu ca suñu borom subhanahu wa taala tudde góor tudde na fa jigéen kon moo ñoo ngi soññ liggéey bi ñoo ngi soññ ci liggéey bi soxna yi nga xam ne ñoom lañ nekkal fee ca réew ma yéemaluñ ko foofu sax ba ci Espagne ba ci fu ñu mën a nekk ca àdduna bi day dégg liggéey bi am xemmem teefi ñu ànd ñoom liggéey Sëñ Tuubaa bi ñu ngi ci woo ñëpp ñoom la sëñ Saali waxoon moom la ñuy doxee mooy duñu fekk lu yàlla yaatal ñu di ko xatal te kenn ku ne xam ne Cheikh Amadou Fadal moom ñëpp ci am cofeel ñëpp am yéene bu ko liggéeyal xanaa ñoom tawféex yi ñoom la ko Sëriñ Tuubaa defal tawféex ji nag ñoom nañ ñu ko waxee mooy am nañ yéene ànd ko jullit ñëpp rawat na murit Sëriñ Tuubaa yëpp waaye rawat na ñi nga xam ne dañuy dund Cheikh Amadou kon daal li ñu waxoon ci euh, kàddu yu lu ëpp na waaye seen yéene ak seen cofeel Cheikh Amadou Fadal tax na bu ñu xasee teew ci seen jëmm yi di leen jàkkalu yéen duñ mën a wax te ñun ñi ñu jox kàddu gi bu ñëwee ba sawet nii euh, wax danañ jafe lool kon ñu ngi jéggulu ñëpp tey siyaar ñëpp di ñaan jotaay bi yàlla na yàgg lool euh, lépp lu ñu fi indi ren lañ fi indi déwén yàlla nay asakam te sëñ Tuubaa dimbal nañu ba buñ ci gis suñ bopp waaw jëf ji nu mën a toll yàlla yàlla buñ ci gis suñ bopp yàlla nañ ci gis jëmmi sëñ Tuubaa ci kese suñ borom gën a dolli xéewal yi yokk wér yi sàmman ñu njaboot gi nag ci suñu ci àll ak ci dëkk barki Seexul Xaddim ba na nga xamante ni képp kuy génn noonu nga waroon taxaw sa njaboot suñu borom wuutuñ ci ñooñu te sàmmal njaboot suñu ginnaaw ba na nga xam noonu la ab war a mel ñu mel ni barki borom Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sa jërëjëf Serigne Cheikh Touré ñoo ngi ñaan yàlla ak sëñ Touba it suñ borom guddal saw fan te wéral la ci barkeb jataay bi eh, di siyaare sang bu baax bi bu baax a baax di siyaare suñ mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoom lañ àndal tamit muy suñu jëwriñ yi nga xamante ni ñoom lañ fekkan ci liggéey sëñ Fallu bi ñu yor ko ci seen loxo ku ci mel ni sëriñ Fallu Lo mi nga xamante ni ma nga nekk Palma de Mallorca am na ci ñu jóge ba Alicante am na ñu jóge Granada am na ci ñu jóge Madrid fépp fu ñu yaakaar ni ab daayira nekku fa ndaxte euh, daayira yi sëñ maam seexum euh, sëñ aboom yi da cee def liggéey bu rëy ndax moom la sëriñ bi yabaloon bi muy coordonné daayira yi waxoon ni saa bu ñëwee ci dëkk bi euh, na dem Madrid bu demee Madrid Serigne moodu Ba orienté ko ci dëkk yëpp mu dem fa ñu ñu ñu lëkkale dayre Serigne Fallou yi looloo indi daayira fédération Serigne Fallou mën nañ ni Espagne gi yëpp yëpp yëpp yëpp benn dëkk dong ci bokkul muy Malaga benn dëkk moo ci bokkul muy Malaga ci ci ci fédération bi waaye Espagne gi yëpp ñoo bokk ñëpp bokk ci fédération bi waaye daal euh, euh, nit ñëpp tamit teew nañ fi ñi ci ëpp bokk. teew nañ fi ci liggéey bi kenn ku nekk daanaka sa jëwriñ teew na fi bu fi sa jëwriñ teewul yi tamit euh, am nga koo yabal kon wax dëgg yàlla ñuy tamit suñu xol sedd na suñu yaakaar dolliku na sëñ tàkko mii nag bañ ñu booleeg moom ba naga ni bus bu nekk moom mooy jël sax téléphone am di ñu woo kon nag xam nga ni koo xam ni wax dëgg yàlla joxuñu la dara defaluñu la dara lu dul maanaam waaye nag suñu jëmm lañ la jox euh, wax dëgg yàlla kon euh, mbake ñoo ngi lay ñaan yàlla ak sëñ Tuubaa guddal sa fon lool te wéral la te xam ni sëñ Fallou mii ngay liggéeyal ñun de xam nag ñi moom moom ci nga ne ndaxte xam naa ni moom nga ñu jàppe ndax tekkiwuñu dara te foo yaa ngi jël sa téléphone di ñu woo naan fuñ toll ci liggéey bi kon nag mbaki Balla yàlla na la fi suñ borom saxal te wéral la te dëgëral la kartanal la ba nga fekkee lépp yàlla bu kenn séddale dara ci sa ginnaaw barke Seexul Xaddim ñoo ngi tub bu baax tey jéegul kàddu yi dañoo mënta wax ci mbooloo ñoo ngi tub bu baax